ñu fi dajale. waaye nee na Chérif Ibrahima nee na ginnaaw dafa am lu ñu fi dajale. moo di yàlla ak yonent moo di sunu borom tabaraka wa ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. te ñëpp a ko bokk. ah Chérif Ibrahima nee na kooku ñoom ñëpp a ko bokk. te sallallahu alayhi te nee na maamam nee na. nit ñi. mooy dajale nit ñi. ngeen lekk naan. ñu lekk te waxuñu fa lu jëm ci yàlla. te waxuñu fa lu jëm ci yàlla. ah Chérif Ibrahima nee na kon nag. dañuy gañe dañuy dàqanteeg waxtu wi. nee na dañuy dàqanteeg waxtu wi. ñu jox sëñ Abdou Aziz Fall mu ubbi. mu jox Cheikh El Hadj Abdou nee na mu ubbi. fii ba timis di jot. nee na fii ba timis di jot. bu ko defee. nee na bu ko defee nag. ñu jël kaddu gi. ah Chérif Ibrahima nee na ñu jël kaddu gi. jox ko Serigne Habib. jox ko nag Cheikh El Hadj si mi toog. suñu bàyyi sëriñ Mouhamadou sëñ Mbay si Mansour. mu suñu bàyyi sëriñ Mbay si Mansour si. magam yebal si ko. magam ju baax ja yebal si ko. baayam yebal si ko. baayam it yebal ko. ne na ko ñëwal. ni na ko ñëwal. ndax ngant lu ko dab. ndax ngant lu ko dab. mu ñëwal ko. ndeysaan sëriñ xajaar bi ñëwal ko. waaye mat sëkk nag. ah sëriñ Ibrahima nee na nag mu mat sëkk nag. ñëw bi mu ko ñëwal. nee na bi mu ñëwal sëriñ Mbay Abdou. nee na bi mat na sëkk. te bu àddoo. te nee na da ngeen di xool déglu bu àddoo rek. ñëpp danañ ci jëriñ. ñëpp danañ ci jëriñ. incha allah nee na incha allahu si. lu fi bàyyi mu waroon wax rek. nee na lu fi sa bàyyi bu baax ma waroon wax rek si. incha allah nee na incha allahu taala. dana ko ci wuutu ah Cheikh El Hadj ko ci wuutu wuutu bu rafet. budul sax Serigne mbay nee na budul sax Serigne Mbaye. moom sama xarit la. nee na Cheikh El Hadj Abib nee na Serigne Ibrahima nee na yow soppeem nga xaritam nga. loolu xam na ñun ñëpp xam nee na fa tabarakalla aussi Malick nee na yow loolu xam nga ko nee na jullit yëpp xam na loolu kon nag benn xeer jam ñaari picc la nee na kon li na wax naan benn xeer jam ñaari picc moo moo mooy lii tey nee na Chérif Ibrahima nee na mooy lii rek tey kon nag incha allahu ah nee na kon si incha allahu li ñu wax rek ah Chérif Ibrahima nee li ñu wax rek kilifa yi teew yëpp nee na kilifa yi teew yëpp ñii sëñ ngañ lim ñii ma fa tabarakalla ma lim leen lima ni na lima dinaa jëlal sama bopp. ah Serigne Ibrahima nee na dina jëlal boppam na ca mujj lim ñëpp. nee sant leen. nee na sant leen. gërëm leen. nee na gërëm leen it nag. incha allah na Serigne Ibrahima nee na incha allahu taala. njaboot yëpp ba ci njabootu El Hadj Tidiane ñan. nee na njaboot yëpp ci njabootu fa tabarakallaa sunu baay bu boppam El Hadj rek dinañ leen. dina leen tudd. bismillah alhamdulillahi allazi jallat qudratuhu wa alat wasalaatu wasalaamu ala man sharafahu llahu birrisalati allati samat wa ala آله وأصحابه الذين هدى الله قلوبهم للإيمان فاهتدت ورضي الله عن الأولياء المؤمنين الذين كان لهم في رسول الله أسوة حسنة بك جلد yi fi daje yépp assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di baalu xaq di ñaan yàlla ci mbaaxam yal na nu yàlla boole baal yan ñu yàlla dugal ñun ñépp ci biir gaaraan ci yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam addina ak alaxira fa tabaarakallaahu jiital ci nuyoo bi surafaa yi fi teew ñuy deret ci yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa tegal leen nuyoo bi ci loxo soppe di xarit di Cherif Ibrahima Haydara at-Tijani mu jottali leen ko tabaarakallaahu bi ñu paree ci moom ñu nuyu nag sunu sëriñ di cheikh Habib si bu sunu wayjur sëriñ Babacar si bu sunu maam Cheikh Al Hadj si radiyallahu taala anhu tey mu tooge fi toogaayu Cheikh Al Hadj si ndax kat fa nga bokk. rus nañu yebal njaboot des gannaaw di ko xaar dañu lay yebal ba noppi jiitu la sa maam sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu gàmmu gaaya dafa jot ñu soxla ku leen gàmmul kilifa yi ci kër gi ñépp ku nekk am lu mu la sant ñu seet seet ku nu yebal gaaye ñépp occupé tabaarakallaahu mu ni sëriñ Seybatu Fall waajal ma yebal la gàmmu gaaya sëriñ sëybatu ni ko hee si Malick nga def musiba man mën naa jàngale wante mënuma waxtaan sëñ Babacar Si ni ko yow dem rek nga ci am bu dem jotee solul ba jekk ñëw ma ñaanal la nga dem waaw sëriñ Saybatu solu ba jekk ñëw ci sëñ Babacar Si mu ñaan ëf mu départ wuti gaaya nee na bi may dëgmal gaaya maa ngi seen kaaba ga dara doxul sama diggante kaaba ga mu fanaan gàmmu ba bët set gàmmu goo xam ni kenn musu ko def te ku ne xam na ni làmmiñu wa dafa takkoon jàngale téere la mënoon waaye mënul woon communiquer ak mbooloo gàmmu ga jeex waa gaayee def délégation wax ni dañuy ñaan sëñ Babacar si ni ko bu mu yabalati keneen ku dul sëriñ Seybatu nee na mu départ ba wane gannaaw gaaya rek gisatul dara déggatul dara yëgatul dara mu ñëw songu Serigne Babacar si ci diggante doomi nijaay ak doomi bàjjan waaw ñëw ni ko simaalik delloo ma sama yif waaw mu ni ko dama la ko abaloon rek faal mu ni ko waaw ba nga xamee ni danga ma koy abal ba noppi nangu ko lu tax nga ma koy jox tabaarakallaahu waaye ñi la yebal dañu lay jiitu ah tabaarakallaahu loo def muy noonu loo wax muy noonu kon si ñu ngi lay dalal ah ñépp tey Cheikh Al Hadji si lañ lay xoole tabaarakallaahu yal na yàlla yéegeel seen fan yal na yàlla yéegeel seen martaba yal na yàlla yokk seen xam-xam yokk leen leer nga nekk fi nag tey ak ñi nga bokkal réew mi ñi nga bokkal diine ji ñépp tabaarakallaahu yaa ngi den rek suñu bàyyi Seyyid Mouhamed Sanke tabaarakallaahu Cheikh Makhtar Kunta mi ngi fi teew ngeen bokk tool bi sëriñ Souleymane Seck Thierno Ahmadou Ba mën nañu wax ni Sénégal yépp daje nañu fi soxna Xalimatu Mbàkke ñu ngi koy tudd léegi kon nag bu Cheikh Alxaaji Malick toogee sëriñ Touba toog Cheikh Abdallahi Niass toog maam Bu Kunta toog ah Cheikh Alxaaji Omar radiallahu anhu toog ci wetu Seyid Cheikh Ahmad Tijani radiallahu anhu foofa ku mu neex nga dugal fa sa yéene soxna faat siitam sunu sëriñ tabaarakallahu bu sama turandoo Cheikh Alxaaji Abdul Aziz mu ngi fi waaw pour wettali la pour gunge la bu ko defee nag bëccëgu cant la ak soxna asiyatu si bu maam as bu sunu maam cheikh mouhamadul mansour si jamil moom itam mu ngi fi tabaarakallaahu moustapha si jamil bëccëgu cant la ku deful dara kenn du la sant walla bu ñu la santee itam dangay nga yëg ni yeyo yeyow wa cant gi waaw shérif dawaa ir yi bu ñoo daje pour defal la bëccëgu cant ndax yàlla wettali gi nga leen wettali gunge gi nga leen gunge waaw Thierno Ousmane dama ko santale ba waaw moo tax ma ni Cheikh Alxaaji Omar mu ngi fi waaw dawaa ir yi tabaarakallaahu ci wettali gi nga leen wettali ak gunge gi nga leen gunge ak jàpp gi nga leen jàpp waaw jiitu ci seen àlluwa jiitu ci seeni soxla jiitu ci seen i bànneex ak seeni i naqar tabaarakallaahu ñu jàpp bëccëgu tey pour dajale gor yépp seede leen ñépp ni amel nañu leen njukkal tabaarakallaahu loolu ñun xam nañ ci dara ndax man ak yow guddeeg bëccëg dañuy ànd dañuy waxante téléphone fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiina ñu wax ni rek lañu naroon a sante Chérif dañ koy soppi def ko muy ñaan ñu naanal ko yàlla yàlla guddal fanaan yàlla yéegee martabaam te yàlla li ay mébétam loolu lañ lay ñaanal xaydara fa tabaarakallaahu ñu fi daje ñépp ku ci ne da fay si bor waaw ku ci ne danga fay si bor ah, ndax shérif ku ci ne lebal na la loo xam ni mënugoo ko fay waaw ah, tànqam luwul daray kenn shérif xeebul kenn waaw lu xale tuuti tuuti bu xewlee bu ko ko yëgalee moo cay jiitu kon fa tabaarakallaahu ñi fi daje ñépp dañu ñëw pour fay bor bor nag soo ko mënagul fay dangay def loo am nga avance ca bu yàggee borom dana xam ni am nga yéenay fay mu jéggal la la ca des waaw ko defee kon ñu ngi nuyu ñépp di dalal ñépp di sant ñépp guddi na te dañ jëm ci programme programme bi moo di professeur baa ngi toog Cheikh Al Hadj Malick Sy anhu te nag fa malikun al maadi huna mislu malikin hunalika fii diinin wa ilmin tasaddara waaw tabaarakallaahu kon euh, Seyid Habib Chérif dafa wax ni naa la ubbil muy lu diis ci man ndax ubbil koo xam ni caabee na ngi ci poosam dafay doy waar ndax gisante wuñu avant ngay ñëw waxantewuñu wuñu téléphone te xaw ma woon ni yaay ñëw kon suñu ma nee ma ubbi la dana doy waar lool waaye nag xam naa sama bopp ubbilu ma la tey àddina bi yépp képp ku yàlla may xel ngay xalaat te am xol bu sell di yéene jaaxle nga ci lenn acharrun urida bi man fil ardi am araada bihim rabbuhum rachada xam naa ñi laaj-laaj bi sax ñu am teggin lañu ndax charr gi nanguwuñu ko delloo ci yàlla nanguwuñu ko delloo ci kenn ñu def ko bi binaayati lil majhul waaw acharrun urida bi man fil ardi am araada bihim rabbuhum rachada yiw nag foo ko séentu fudul ci yàlla rek doo ko gis waaye safaan boobu nag xamuñu fu mu jóge moom lañuy laaj ndax safaan boobu kenn xamul fu mu jóge moo nam faagaagal àddina bi wala yiw wi leen yàlla yéene moo dominé kon nag tey question la bu ñu lay posé ñu pare nag di xaar nga tontu ñépp ku ci nekk ci mustawaa bi ko yàlla teg dañu constaté waaw laaxadna alfachal alaam alladi laaxadnaahu wa laaxadahu maana kullu man bilbasirati yandur échec échec bi nga xam ni moo dal ñaar échec bi dal politiciens yi ak échec bi dal ci ñoñ diine waaw ngeen baal ma nag kàddu gu diis la waaye man lu ma wax mën naa ko layal ndax yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo noppal fa inna diina rasulillahi fiihi lana xallul mashaakili duniyaaha wa uxraaha dafa togg benn cin moom sallallahu alayhi wa sallam tibb ci ñaari ndab ni ndab bi ku bëgg sa àddina jag lekk ci muy añu àdduna mu tibb ci ndab ni ku bëgg sa reer àllaaxira jag na nga ci lekk kon muy benn cin bu jagal àddina jagal àllaaxira jamono ñëw am ñu ni ñoom duñu lekk ci ndabal yonent bi mu leen taajal pour ñu añ ci togg seen añu bopp moo leen doy ñu wut seen système yu bopp moo xam bi ñuy tuddee socialisme la walla libéralisme la walla bi ñuy tuddee euh, communisme la walla moo xam ñu tudd sax démocratie waaye yooyu yépp lank ni bu ñu lekk ci ndabal yonente bi sallallahu alayhi wa moo tax ñu teg seen cinu bopp waaye nag man lam yaud muhammadan fi ilmihi fal ilmu fihi xasaaratun wa malaamu waaw ku taal teg sóor yàq te sóoraale woo ci ndab bi nga war a yónnee yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ma xëpp ci suuf waaw tax isal imaanu daa fala amaana wala dunya liman lam yuxyi diinan wa man radiya alxayaata bi gayri diinin faqad jaala alfanaa laha qarina incha allahu taala échec bu njëkk bàngo te moo dal ñooñ politique bañ nañu nee nañu duñu añ ci ndabal yonent bi sallallahu alayhi wa teg nañu nag cin yu bare waaye ba nëga ni kenn añagul waaw ba nëga kenn añagul ndax yàlla moo garantil yonent bi ni ko ku sóor ba ñorle la yàq te tibbul ndab li gën a jekk pour yónnee la ko man yàlla ma xëpp ci suuf tabaarakallaahu kon ñoom ku ne xam nañu échec nañu tubaab yaa ngi tey gëmloo woon nañu ni ñoo ëpp alal ñoo ëpp xam-xam ñoo ëpp pexe dem nañu sax bay wut ay groupe ay G8 ay G15 xaw ma G20 tey ñool bëtik di tudd crise mondiale bu doon crise africaine sax ñu mën ko nangu nga xam ni dañu boole ci groupe yi gën a néew doole waaye pourquoi ñu ni crise mondiale mooy wane ni vingt beeg huit beeg quinze beeg ñépp ku ci ne danga doon tappale waaye ndaka dara newul woon ci sa poche ah fexe woon nañ nag ba def ko mit nit ñi gëm leen waaye tey ku ne xam nañu ni seen yalwaan këpp na beneen crise bi beneen échec bi moo gën a garaaw te mooy bi dal ñooñ diine bi dal ñooñ politique sedd na ndax ki réer fa ñépp di réeree sañ nañu yaakaar ni bu demee fa ñuy gindikoo dana gindiko waaye fa ñuy gindikoo nag ku fa réer dootoo gindiko ilaa yowmal qiyaamati maa dalla illa man udilla ala hudan wasfun yuqabaxu janibal awsaafi lu tax ñu échec ñoom nee nañu danañu lekk ci ndabal yonent bi waaye nag dañ caa rax leneen fa yaa fuqara al waqti maa lii araakumu ataytum umuuran laa taxillu bi sharcina fa kam bidain axdastumuha bi jahlikum wa sirtum alayha aakifina li yowmina jaaltum tariqal qawmi rahtan wa sayhatan wa munkara aswatin tahyijan lana waaw wa mal'a butunin min riba lam yufid siwa tajashu'ikum ya qawmi hawla buyutina wa tahsila arzaqin wa darba awaida ala nnasi taabaha qawaidu dinina wa xarraftumu tahlila an wadaihi alladi ataana bihi tanzilu min indi rabbina wa tarraqtum fihi taraiqa lam yakun alayha rasulullahi walqawmu qablana akaana rasulullahi yasxabu munshidan yunaadi bi ala sawti laylan mudandina kon fakun aaliman bi sharci waxmal bihi faman araada tariqan duna ilmin faqad jana waaw dañ ci boole lu ci bokkul te yàlla moom diine lu dul ñaar du ko ci baale ñaar ñaar rek la ci baale mooy folklore bi nga xam ni ñi jotagul ci xaqiiqa yonent bi ci la ñuy yem muy xumb xumb yi gàmmu yeeg ziyaar yeeg cérémonie yi diineeg yépp ci folklore diine na bokk yàlla baale na ko ndax am na ñoo xam ni bu xumbul du ñëw waaye nag ku dul fer itam yàlla jéppi na la waaw mag buy déglu lu xumb ba xëy màggat war naa dem ca la teey nag te xaqiqa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo teey waaw kon suñu demee ba vingt et unième siècle ñu bëgg wone diine force diine ci ay démonstration kese kese damay wax ni fachal bu mag la kooku yàlla dina ko baale ndax mooy folklore bi nga xam ne ñu jotagul xaqiqa bi ci la yem ñaareel bi nag mooy xaqiqa ba ñooña nag ña ko moom xaliilun hum ñoo ngànk àddina bi bu dul woon ñoom tey caaf xëm ah, ñoo nu fi bàyyi tey waaw ah, ñu dul yii ñaar rek bokkul ci diine soo ko ci dugalee yàlla delloo naka waaw ñoom itam échec boobu moo dal seen kaw te moom boobu moo gën a metti bi dal ci kaw politiciens yi kon nag yaa Cheikh tey ñépp a ngi toog di xaar tabaarakallaahu ci li nga nu indil nga ubbi sunu bopp waaw kon nag li ñu lay wax mooy anzir qawmaka xaw ma nag ndax laallahum yarjiun wala laallahum yaxzaruun ban nga ciy jël ah ndax béy wees na mbuus ba noppi kon nag laallahum yarjiun a xam naa moom ngay jël tey kon fa tabaarakallaahu li ñu dal metti na waaye nag li fekk dabaatale ngi am rek yàlla di ñu ubbil bunt kon fa tabaarakallaahu sëñ Habib ñépp a ngi toog ñépp jëppi nañu ma ndax kàddu gu gudd gi ndax ñépp yow la ñu yàkkamti woon déglu baarakallaahu fiikum kon nag afiduuna ifaadatan taamatan baarakallaahu fiikum baarakallaahu fiikum baarakallaahu fiikum wassalaamu aleykum wa الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على المتخلق بصفات مولاه سيد الوجود وعلم الشهود إلى الوجود وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokki jullit yi fi teew yépp ak mbokki dëkkaale yi yéen mbokki jullit yi fi teew yépp ak mbokki dëkkaale yi bokki wëllëre yi ak bokki deret yi ak bokki pas yi yéen ñépp ñoo ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel ñoo ngi fi teew tey ci sunu ndigalu kilifa di sunu murshid di sunu qaa'id mawlaaya cheikh Seyd Abou Bakr najd cheikh Alxaaji Abdul Aziz li ma mos di wax nag ni wax ji ñoo wax ni inna rasula bi qadri al mursili al rasula bi qadril mursili fekk kañu yebal fa laysa bi miqdaari cheikhihi ndax ki ñu yebal ci jëf ju yàlla sottal gannaaw li yéene bu sell lal ko Chérif Ibrahim def lu mel nii dajale ay jullit ñépp ñëwandoo ci benn yéene amandoo ci mbégte boo wëlbatikoo yow ma ñu yabal defe ni am nga looleen wax xamuloo de xew man dañu may yabal pour defaraat sama jikkoo al insaanu min jihati tiini bi ixtilaafi alwaani wa min jihati al bi ixtilaafi al axlaaqi aadama ko bind ci suuf kooku ñépp xam nañu ko moo tax melokaanu nit ñi wuute ñii ñuul ñii xees ñii xereer ñii weex kooku ci tabia suuf la bokk ku dem fa ñoo tibbee suuf daa xool melokaan yooyu yi feeñ ci jëmmu nit ñi ak ci seeni der daa fekk yàlla jeexital ko ci suuf si waaye lu tax nit ñi wuute jikko ndox ma yàlla mooñee ban ba mu bindee aadama ci la nit ñi wuute jikko al insaanu min jihati l bi ixtilaafi l moo tax bu ñoo interprete waxu nitu yàlla yi laaj na boo gëstoo ci téere yi ba noppi teg ko waxtaan ak mag ñi ñu wax la xew ndax ku jàng danga bari coow waaye ku mag ñi déey boo génnee noppi jàng ci téere yi xam-xam ci mag ñi qutbul wujudi alladi abda wila rabbi wa aadamu bayna almaai wa tiini ak tiinu min jihati aadama bi ixtilaafi l alwaani wal maau min jihati aadam bi ixtilaafi l axlaaqi la ca Cheikh Seyd Aboubacar jàngale yaatu na Seydina Cheikh rek taxu ko woon a jóg moo tax fa hayyinun layyinun fa hayyinun xalqan layyinun xuluqan fa hayyinun xalqan min jihati tiini layyinan xuluqan min jihati maani tax waxtaane jikko yombul tabax ku ci bëgg a wax boo tëbee dal ci kaw toiture bi dafa yéeme waaw kon loolu mooy suñu cosaan loolu mooy suñu cosaan daf ko ni làmbal sa bopp boo jeexee sa bopp ba mu jeex ba wëlbatiku gisuloo loo daj ca nga ma daj aljahlu billahi aynul iman waljahlu billahi aynul kufri jeex gi nga jeex yàlla ci sa bopp yàlla ne la loo daj nga ne ko dajuma dara yàlla ne na booba nga ma daj parce que je ne suis pas palpable ni waaye nag li ma jële ci sama bopp interprété ko sama bopp ku ma réere ci moom taxaw nga ci kéeféer te mooy réere yàlla ci yonent yàlla muhammad al aynu al jahlu billahi aynul kufr min jihati nabii sallallahu alayhi wa sallam wal jahlu billahi aynul iman min jihati datihi sànq nag ndokkeel nañu dëkkaale yi ndax dafa bari ku ñu jox nekkoon nañu nag ñu traiteel xuquuqul jaar yi maa koy wax xalifa ñan kero xàqu dëkkaale ak xaqu dëkkandoo dëkkandoo bi mooy yàlla kiy toxu mooy dëkkaale moo tax sànq ma nuyu dëkkaale yi te nuyuma dëkkandoo bi ndax kenn du ko ne asalaamaaleykum yàlla mooy dëkkandoo kuy toxu nag dëkkaale bi moo tax bu ñu bindatee xuquuqul jiwaar yi na ko changé bu ñu defatee xuquuqul jaar yi nangeen ko wëlbati def xuquuqul jiwaar yi Chérif Ibrahim sa xarit sa soppe sa mag sa wóllëre ñu ngi laa nuyu di la ziyaara di la ndokkeel di Cheikh Seydi Abou Bakar ibnu Cheikh Alxaaji Abdul Aziz di la sant di la gërëm sëriñ bi yàlla xaarul kenn ci dëgg te ñépp dëgg lañu bëgg yàlla xaarul kenn ci dëgg ndax allahu huwa alxaq yàlla xaarul kenn ci boppam xam nga yàlla ci lan la xaar nit ñi ci dëggu yàlla xaarul kenn ci dëgg yàlla ci dëggu la xaar nit ñi abu bakrin as siddiq keroog ba yonent bi jógee ca isra wal miraaj wàcc si bi tasdiqihi siddiqu naa la saadatan dëggoo ko ko may waaye du dëgg dëggu ca la ko yonent yàlla muhammad bàyyi woon wëlbatiku ñëw fekkaat ko ci ndax ku dëgguwul sa kilifa mën na dëdd nga soppi moo tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi moo woote ca makkatal mukarrama sa maam di woote ci biiri bokkam indi fa lu bees lu xel miinagul te ruux war ko nangu ba mu ca wootee ba sonn jëmmi jamono mu am ay kilifa yu crise dal ñu lenn fi sës lislaam a ngi taxaw te am nañu as lëf ci koom-koom te daraja ji ñu am ak juddu bi ñu am ci biir makkatal mukarrama bu ñu crise dabee boo deful ndànk suñuy nawle dana ñu ko xeebe kon nañu dem seeti ko nangul ko li mu doon woote bu ñu amee li ñu bëgg soppi doxalin bu ñu bu ñu amee lu ñu bëgg soppi doxalin ñu ñëw daje ci kanamu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ida jaaka almunafiqun qaalu nashhadu innaka la rasulullah wax jooju dëgg la wax jooju dëgg la rek yàlla addu ne ko xam nga ni ñu ñëwee te lii rek nga yàgg bëgg dégg ci seen làmmiñ waaye fais très attention gëstul lu leen tax a jóg boo ko xamul man yàlla ma xamal la ko gëstul lu leen tax a jóg ndax baat bii rekk nga yàgg xaar ñu génne ko ci seen làmmiñ xam nga nag naka la ñu ñëwee waaye la leen tax a jóg xamuloo ko gëstu ko boo ko xamul man yàlla ma xamal la ko yonent bi ne teg yàlla ne ko wallaahu yaalamu ndax li nga doon ci sama xam-xam laa ko defe innal munafiqina la kaadib innal innaka la rasulullah wallaahu yaalamu la rasulullah waaye wallahu yashhadu innal munaafiqiina naka naafiq yi toog ci sa kanam la ñu wax dëgg la la waaye dëgguwuñu la ñu wax dëgg la waaye innal munaafiqiina la kaadibuuna dëgguwuñu sëriñ bi nag ci dëggu dëggu moo la may lii Chérif yow dëggu moo la may nag xawma suma ay kilifa ndax la waykat ba waxoon xasaan ibnu thabit rek ba moo tagg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa waaja ñëw bëgg ca barkeelu ne ko man dama yëg ni la ma waroon a wax yépp yàlla wax na ko waaye mbaarum tëgg nag toog fa muy ruusal nga cay foraatu di ca am looy jéem du wàññi dara lii mooy sa esprit de qualité bari na lu nit teg loxoom ñu fekk ko yëkkati ko ne ko lii du sa cër mu teg loxoom ci leneen ñu fekk ko fa yëkkati loxoom ne ko lii du sa cër booba jamono mu ngay dund esprit de quantité boo demee ba loolaal ñu xamal la ne la du lii dangaa def sa esprit de synthèse seeti mag moo xam ni danga ko fekk ci sa toolu bàyyi mu liggéey ca ba ñu wàcce ko te wàccewul boppam mu wax la fekk def nga sa esprit de synthèse ba noppi fa mu lay orienté nag fa ngay dundee sa esprit de qualité jóg wuti nag yomb na waaye li jafe mooy xam fi sa mbir nekk jóg wuti yomb na waaye li jafe mooy xam fi sa mbir ne moo waral làmbatu bu bari beeg coow bi ku xam fi sa mbir ne dafay jublu te noppi kon fii nga toog rek mooy barab bi fa lillahi alhamdu wa di nuyu sunu bàyyi sunu papa alxaaji si sa jinge bi doy na présentation ndax cër bu fi nit sàkku bu dul nekk njaboot cër ba loo ca def ba ñu sanctionné la génn nga bokkatuloo boo gisee yàlla yaatal ndabam loxo ñépp xaj ci te mu ni lam yalid walam yuulat walam yakun lahu kufuwan ahad li tax ñépp des fi yàlla nekk sabuur mu teg nit ñi bët ñuy xëy ci seen bakkan di ci gont te aajo bu ñu am yàlla faj ko alxalqu kulluhum ayaalullahi moo ko waral yàlla nee na juruma kenn te kenn juruma waaye nag nit ñi sama njaboot lañu ndax lu fi naqari nit ci nit ba mu koy mere ba ni dootuma jëflanteek moom yàlla nee na man nangu naa ko ba tey bàyyi ko ci kaw suuf mu di ko dundee kon du raison yàlla nañu yàlla def njabootu maamam Cheikh Seydi El Hadji gis nga njiitu réew mi ñi muy naanandool ak ñoom ataaya di bokk ak ñoom avion bi muy tukkee duñu ministre duñu ambassadeur njaboot lañu waaye ku ca bëgg xëy nekk ministre ba décret fal la bés dana ñëw décret folli la te dootoo dugg ci biir kon ñaan yàlla nekk njaboot a gën a wér nañu na dégg yàlla def njabootu maam Cheikh Al Hadj Malick ca kanamu yàlla mu ni ko ana njaboot gi mu tekki ëmb bi fekk yaa nga ca biir moo gën a wér di ñaan wilaaya moom la maam Cheikh Al Hadj junj na tariqa boo xam ni Cheikh Sidi Mouhamadin El Ghali daf ca ñaan yàlla nekk taalibe Mawlana Cheikh El Hadj Omar El Fouti saaxib rimaax al daf ca ñaan yàlla nekk taalibe foofu lan la fa Maodo war a ñaan lu dul njaboot. di nuyu sunu bàyyi góor gi Ahmad Sànqe di nuyu alxaaji Souleymane Seck di nuyu Sidi Muxtaar Kunta di nuyu Alxaaji Abdul Aziz ci kalimaat yu mu fi rotal ak fasaaxa bi mu ko joxe ak méthode bi tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin ñoo ngi ñëw léegi ci sa question incha allahu taala di nuyu Cerno Ahmed Tijani Ba bu Mbambilor di nuyu Thierno Ousmane Diallo di nuyu Mouhamadul Habib Niang ak njabootu góor gi Alxaaj Tijaan Niang yépp di nuyu mboolem dawaar yi fi teew ak imme yi asaatida yi ñépp ñu ngi leen di nuyu fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin di nuyu nag suma yaay suma bàjjan ki ma yar di soxna Fatima si mu Cheikh Alxaaji Abdul Aziz ñii nag ñooma moom ñaari yoon ñooma moom ñaari yoon xam nga sëriñ Babacar Abdoul Aziz ak sëriñ Mbaye Sy Mansour Cheikh Al Hadj Malick rek daf leen tënkul sëriñ Babacar Abdoul Aziz ak sëriñ Babacar Cheikh Al Hadj Mansour Cheikh Al Hadj Malick rek daf leen tënkul Cheikh Alxaaji Malick moo jur Alxaaji Abdul Aziz mu jur Serigne Mbaye moo jur Cheikh Alxaaji Mansour mu jur Serigne Mbaye Mansour kooku ci seen wàllu baay la waaye góor gu ñoo wax maam Ousmane Ñang ma kodde Njawar Maar moo juru soxna suñoo wax soxna sëyna bu Ñang soxna Seyna bu ñang moo jur soxna Xadi Njaay mu jur Serigne Mbaye Abdoul Aziz maam Ousmane ñang moomu moo jur soxna suñoo wax leen ñang mu jur soxna Aminta Seck mu jur Serigne Mbaye Sy Mansour moo tax soxna Faat Si bii daf ma jur ñaari yoon Ousmane Niang moomu nag moo jur Seynabou Niang mu jur soxna Khady Ndiaye bi Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz doon denc mu jur soxna Fatou si bii ak Serigne Baye Abdoul Aziz moo jur Madeleine Niang ñu jox ko Bouyel Mogdad Seck Doudou Seck Bouyel Mogdad mu jur Aminta Seck mu jur Serigne bay Mansour di nuyu soxna Xalimatu Mbàkke sunu mbàjjan yu baax yi di nuyu sunu doom soxna Asiyatu sunu bàyyi Cheikh Seyd Mouhamadul Moustapha Sy Jamil waaye lu mun xew li Cheikh Al Hadj Malick wax ni radiyallahu anhu sama dund ko xam-xam. yépp ak at yu ma ci mën a def ak nu mu mën a toll bu ma ko yëgoon sàkkoo ko yar ak teggin ñi daan tabax nit ñii nee nañu dañu jeex ñii nee nañu dañu làqu ñi daan tabax nit ñii nee nañu dañu jeex ñii nee nañu dañu làqu waaye dañu làqu moo gën a wér ndax li fi mag ñi yoroon du seen alal alalu yàlla la te yàlla bala ngay toxu mu ne la joxoon ma ko diw rubba kanzi daarin taxta yi waaye boo génnee ci jamono seet berkelle ya mag ña daan yendoo nga dox ba ci diggu pénc ñu tegtal la berkelle ya sa xol féex waaye danga dem ba yegg yërndu yëg ni ña ko dëkke woon du ñii mag ñi faf téye seen dénkaane di xaar ba yàlla yabalal leen ku ñu war a tabax xaar ba yàlla yabalal leen ku ñu war a tabax moo tax alxaaji malik si Maodo sunu bàyyi dafa ni kun ibna man chita fi dunya wa kun fatinan tuaamili nnaasa bil ixsaani wal adabi fal fadlu yuksabu bil axlaaqi duuna miran ba mu ne toq ci nopp Cheikh Al Hadj Aziz mu ni ko dindil duuna miran te def ci duuna abin kun ibna man tekkiwul tekkiwul nekk doomu ku la neex ndax juddu kenn du ko tànn juddul te xam kula la jur kun ibna man shita juddul te xam kula la jur fi dunya waaye lu mën a xew wa kun fatinan jëfandikool sa xel ndax mooy investissement bi yàlla teg ci loxo doomu aadama pour mu defar àdduna xel atajaalu fiha yu sidu fiha wa yasfiku dimaa yàlla conversation boobu njaboote rekk a tax waaye mënoo na jël décision amal aadama ci critère yu mu ko neexee waaye njabootee tax akit ki war a ñëw mën a am metodologie bu mu tënk dundam xam ni lu mu bëgg a def te tegu ko ci waxtaan la war a jag du bari udu ila sabili rabbika bil xikmati dafa am ñu ko moom les intellectuels wal mawidati al ñi nga xam ni bëgg nañu waaye xamuñu wajaadilhum billati hiya ahsan ñi nga xam ni gëmuñu ku dul seen bopp boo tënkee aay bi nag jox ko benn nit juum nga ku ñu ndax yonent bi dafa jóge ci rañaan gi gaa yi ne ko yéeg nga ci asamaan mu ni waaw ñu ni ko yëkkatil sa benn tànk mu yëkkati ko ñu ni ko yëkkatil bi ci des te teg bi ci des bil xikmati invité leen ci benn taam ngeen discuter conversation boobu yàlla di wax ak njaboot malaayika yi ne ko atajaalu fiha man yufsidu fiha koo xam ne bu reggee bajantu te bu bajantoo beew kooku nga bëgg a jël projet bu tel ne àdduna teg ko ci loxoom wa yasfiku dimaa koo xam ni bu dajee dooleem rey moo tax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ñu reyee nit ca nitam ya yàlla ne leen fadbaxu baqaratan ba leen yàlla di reyloo reyloowu leen nag lii nelaw ci ñoom te bu yëngoo jëf-jëfu nag la yàlla bëggoon ñu opeere ko génne ko ci ñoom ruddutan nufuusa bi chefrati sikkiini riyaada li diinillaahi tarbiyatan aw riyaadatan fal ibliisu iblis mi nga xam ni mooy chargé nit xeetu influence yooyu ba bu reggee bajant bu dajee boppam àttana tuur deret mabët samat amul la mu bëgg ci ñan ci njabootu Cheikh Al Hadji Malick minhul makaayib bul way baal ma tuuti bul way baal ma tuuti de baal ma yàlla na leen inni alamu maa laa taalamuun xam naa lu ma leen xamalul waaw xam naa man yàlla lu ma leen xamalul ndax boobu ñu ngi sukkandiku ci alquwa algadabaniya alquwa alshahawaniya xam nga nit bu reggee ba bajantu ba mu yóbbu ko ci mbewte ba fekk ku ko mag bàyyi mu bëgg a dëgg ci kawam di nga ko ni delloosil sa xel ku daj darajaam topp dooleem ba gis ni kii danaa ko won ni ma toll ba mu àttana tuur deret di ko ni delloosil sa xel nekk boobu yàllaa ngi nëbb al quwa xel moomu nag afala taaqiluun afala tatafakkaruun afala tadakkaruun ñi yàlla di waxal ñépp mooy ñan ulul albaab moo tax yàlla waxul ak nit xel la waxal moo tax bu xel feebaree ibaadaat yi wàcc ko